asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar te dañuy nuyu suivre si wasaare lamb wasaare TV kon niñ koy defee rek à chaque fois mais tey nag dañoo ñëw fii si Thiaroye ñu seet suñu papa suñu papa mu nekk champion def lu ne nag ci làmb mais tey nag dañoo ñëw fekk ko muy ñaanal ñi nga xam te ne ñoom ñooy ay waajuram waajuram bu góor ak waajuram bu jigéen di leen ñaanal fi ñu jëm dàqal leen fi ñu jógee ah soxna si noonu. waaw dañ koy bàyyi moom mu nuyoo acca Pape Khadim maa ngi lay nuyu. ginnaaw bi ñuy sant yàlla julli ci yonent bi sant Serigne Touba sant suñu ñaari waajur yi ma doon ñaanal tey fi ñu jógee dàqal leen fi ñu jëm fuuf fuuf fuuf fuuf ci barke Cheikhul Khadim du nuyu sëñ Mountakha Mbacké jëwriñu Serigne Touba fii ci kaw suuf du nuyu mbokki taalibe yëpp di ñaanal mbas mi yàlla na fi jóge réewum Sénégal yàlla na am jàmm di wax ni tey nag euh, suñu suñu bés bi maag yow dafa ala daw ndax fi ko fi ñu ko defee fu ma neex la te tey Euh, am nga lu rëy ndax wóor na yàlla sama soxnaa nji du bàyyi ma fen am na sama benn xaritu kilifa daf ma ñaanoon na bu ma waxati xaw ma nag yow Fatim noo def noo def na nag ba ma ba ma wax mais fi ma bette il faut ma wax ndax ku am say waajur ñu génn àdduna bëggoon la lool am fu ñu la teg tudd la Xaadimu Rasuul nga leen di ñaanal lu mel ni site bu toll ni ñëw fi wax dëgg yàlla il faut ma wax ak yow quoi wax ak tamit mbokk askan wi képp koo xamante ni jàpp nga ci bés bi rek maa ngi lay ñaanal yàlla sa fan gudd xam nga di ko njëkkee ci sama mag ji Aji Ndiaye mi nga xamante ni moom mooy lépp ci kër gi léegi mooy taaw ndax suñu mag yu baax ji Abdoulaat dem na moom moo fi des ak Mour di ko ñaanal taxaw bi mu taxaw yàlla na ko yàgg taxaw di ci teg nag sama soxna tey jàpp na ci bis bi trop trop di gërëm ay sëram ak ay yaayam ku mel ni mère a jaw say Diaw nga ne moom la mère Fama jaw yaayam moom la yabal ndax yaayam mënta ñëw di gërëm aseetu di gërëm Ndeye Daba di gërëm Astou Thiam nga xam moo togg añi aseetu il faut ma des ci moom ndax mbubb mu ma sol rek mu rafet ngeen gis ko rek moom moom ma ko jox. te mënoon na ni magam laay sëyal na ñëw ut lu mu ruus mais tey bi mu ñëwee lu sedd yi ñu fi naan yëpp aseetoo ko joxe. maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla ak sëñ Touba taxaw di gërëm nday da ba nga xam ne heure bu ñu dem tuubaa moom it day bàyyi soxlaam yëpp ànd ak ñun ba Touba xam nga te ku ne xam na ni moom ibaadu la mais fi mu ne nii chaque année day dem Touba xam nga day chaque chaque année day dem Touba maa ngi ñaanal nag sama xarit yi nga xamante tamit ñoom laa bokkal ñu jàppale ma ci bés bi ku ci mel ne Laay Camara Ndiaye Ndiaye Ablaye Ndiaye Pape a ngi nii toog sama xarit ñoom ñëpp ñu bàyyi seen liggéey ñëw jàppale ma sama bésu yaay bi maa ngi leen sant leen gërëm asu cam toog na fi añ yu di wax ni képp ku dugal sa loxo rek ci bés bi rek maa ngi ñaan ci barke Sëñ Touba yàlla na nga yokk ba mel ni sorol ba ci Touba di gërëm tamit maître El Hadj Diouf jàpp na ci xaalis bu bëri la ma yónnee te dama ko yëgal rek xaalis bu bëri la ma yónnee Pape Mayel joob moo xam ne moom laa tudde sama doom muy Pape Mayel jàpp na ci Mbaye Sarr Sénégal Tour jàpp na ci Matar Ba ministre sport maa ngi koy ñaanal ci sport bi mu nekk yàlla na ko ci yàlla ak Serigne Touba defal lu kawe njortam di gërëm sama xarit yëpp ku ci mel ni tamit euh, ku ci mel ni tamit euh, doomu Cheikh Amar bi euh, doomu doomu doomu Kéba doomu Kéba moom it sama xarit la jàpp na ci franchement te dama leen yëgal rek xam nga di gërëm Pape Fall mi nga xamante ne moo yor affaire immeuble yi fële ñoom Moodu Xulle ñoo ñëpp wax dëgg yàlla jàpp nañ ci. jàpp waaw waaw. après yow yaa ngi dóoraale de. non man du ma dóor xam nga yow yéen xam ngeen ni man sax duma ma dóor. Ah, ndax su ma doon su ma doon dóor dama la leen wax ne leen damay ñaanal sama papa ak sama yaay dama bëgg ngeen jàppale ma dama ne leen képp ku ko jot gi may nga teew ah. képp ku ko jot gi mayul nag ndax defuma dara ndax xam nga temps yi dañu mbooloo bi moo tax boo amee say nit ngay ñaanal lu toll ni sa papa ñuy see xarit il faut nga wax leen ko te ñu la am moo tax man duma ma dóor ndax xam nga xaw ma nu ñuy dóore sax su ma doon dóor weesu naa fii su ma doon dóor kon boo ñëwee ay immeuble nga may fekk mais man duma ma dóor aéroport ga ma ne sax tey su ma fa nekkoon nitu dóorkat sa jour ma neexee wàcc wàccaale téeméeri junni mais man xaw ma loolu quoi ndax yarawuñ ma loolu. Mhm. ku ma àndal nag dafa naturel rek moo tax ma di ko wax. Mhm. Mhm. tey moom damay kii parce que sa papa nga te sama xarit nga kon li nga wax rek nee nga euh, wax dëgg yàlla xaw ma fan laa jaar mais yow moom xam nga sama xarit nga. waaw père euh, fi may commencé mooy sa relation ak parce que gis naa ni da nga ci moom tey nga koy ñaanal yéen ñaar seen relation nan la demee xam nga relation bu xóot rek. Hmm, mënuma ci mënuma ci sori quoi ndax dafa nekkoon kenn ci man aji mais sama mag mën na ma seede sama yaay benn doom bu jigéen rek la am muy aji moom rek la am ci doom bu jigéen moom mooy suñu ndey mooy suñu baay ndax sama yaay yaayam dafa yara doloon sama yaay benn doom la ci yaayam amuñu nijaay maanaam amuñu bàjjen boo xamante ni dafa bokk ak suñu yaay ndey ak baay amuñu ko moo tax suñu suñu suñu àdduna metti woon mais am nañ fulla gérer ko ak ci carrière bi ñu nekk muy làmb ba kenn yabuñu ci kenn yabuñu ci làmb ji fii ñu dëkkit kenn yabuñu fi jox nañu ñu cër ba lu ñu wax nit ñi nañ ko déglu sama yaay daal boo koy misaal daal jëfi soxna jaara rek la nekk woon ak sama baay metti woon na sama baay nee woon doole mu ànd ak moom di ànd ak moom jóge ci baraak ba ci ay tabax kon yaay jooju kenn mënu ko fay mais baay bi la jur nag seppi la ci say doom tudde xaadim rasul baay boobu mënoo ko fay su ma mënoon chaque jour mu wàcceel leen kaamil barke Sëñ Tuubaa Mbàkke dama koy def ndax ñoom rek la am ci sama àdduna boo gisee liggéey bi may liggéey nii di ci rey sama bopp yàlla ak ñoom a tax ak sama njaboot pour lu ma am mën ci suturu wàccee leen kaamil mais dégg naa nag nga naan tey xamoo foo may jaar mais xam naa ne loolu ay dóor la maa ngi xaar say question xam naa fi nga jëm man waaye ñu koy jaajëfalaat bu baax a baax muy suñu papa Khadim njaay parce que tamit loolu benn parenthèse la ndax dañoo ñëw fekk fi muy wàccee kaame ñi nga xam te ñoom ñooy ay waajuram te wax dëgg yàlla waajur moom nekk na loo xamante ni muy ñun muy keneen ak keneen dañ naan rek bala ngaa gën a am cofeel si ñoom ñu génn àdduna kon di ñaan rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ah yàlla bàyyi leen fii ñi dem tamit ah, yàlla may leen kii rek xaw nu ko olof di xam nga olof bi nag dafa xaw a kii dafa xaw a des waaw mais ah ñi dem kay yàlla kii xaari leen aljana ñi fi aha di leen ñaanal bu baax a baax suñu yaay yi fi des ah, donte ak suñu papa yi nga xamante ni mhm. ñoom ñoo fi des mais papa mhm. loolu yëpp nag neex na dañuy ñëw ci nga xamante ne nag moom mooy ci làmb ji xam nga tey du ma ne du ma fi nekk naan kan mooy Khadim Ndiaye mhm. parce que ñëpp xam nañ la macha allah mais yow fan lay dooree ak yow instant bi nan nga gisee làmb waa instant bi làmb li ma ci gis mooy mi ngi avancé ndax ñu bëri dañu waxoon ni làmb dee na fi mu ne nii may wax ak yow presque mën naa ni juróomi combat wala juróom benn combat yu mag taxaw na ak presque ay combat espoir kon yaakaar naa làmb mi ngi dox xam nga lu ñu doon wax naan CNG na fi jóge CNG na fi jóge yàlla def na xéewal CNG jógewu fi ndax du bu fi jóge du ñoom ñoo ko fi jëlee peut-être peut-être bu fi jóge ministre bi ak confiance de la euh, présidence bi nga xamante moom mooy euh, moo fi ne muy muy Macky Sall teg fi ministre bi nga xamante mooy Matar Ba bi mu fi nekkee dara ñaawul kenn déggul muy wax ju ñaaw wala mu waru Macky Sall toujours lu boo ko gisee muy dox rek ci luy dox Macky sàll ci lu neex Macky sàll rek lay dox Matar Ba laa gis kuy def loolu ak ministre Moustapha Diop ndax ñoom kat sañu ma waat ni lekkuma seen teranga ci seen teranga laay dëkk am na benn jour Moustapha Diop dafa ñëw ci aéroport bi di jël si doomam man gisuma ko sax dafa ñëw di jël si doomam ma gestu ñu ne ma sec euh, sec garde bi oo ma ne ma xaadim Moustapha Diop moo la yow ma ne ko Moustapha Diop mu ne ministre mu ñëw mu yëkkati teraanga ju bëri may ma am na koo xamante ni immeuble tabaro la ne moom heure bu ma gisee aéroport daf may may xaalis sama jabar a ngi toog dafa may jox xaalis ma indil ko te xaw ma ko mosumaa dem bureau kon xam nga man duma ma dóor kat maam booy jaaw yëkk ne teraanga defal ma ci aéroport bi ne ma xaadim di seet Lac de Guiers numéro nga ñëw sama bureau mais man duma ma dem katu bureau wax dëgg yàlla. moo man loolu sama jikko. kenn laa ma sa dem bureau ma taar ba te aw ma audience te bu ma ñëwee bañ ko waxee ne ko xaadim la daf maa bàyyi ma dugg mu yëkkati saranga ju bëri defal ma loolu nag boo ma ko defalee rek danga may rey man góor laa xaw ma loolu ko wax dëgg yàlla. kon père yow ñi naan ay kon Alioune Sarr na fi jóge na fi jóge ak association boobu noonu. Hmm. kon yow d'accord ak ñoom. association boobu ngay wax nag mooy association dóorkat. mooy ñam. ah ban association la. ah fii de association des lutteurs en activité. waa waaw. mooy bi nga xam kan mooy président bi. le tigre de Fass. kan le tigre de Fass. waaw mooy kan dama wax nga bëgg nga wax. Gris Bordeaux kan mooy le tigre de Fass. waaw tigre de Fass mooy lan. ah tigre de Fass mooy la ah mooy ki nga xamante ne waa Fass teg ko fii. waa muy def feu et flamme. bu ba jub roi bi wàccaat. ah loolu samay xam nga kon moom bu fekkoon ni ku fi ku fi deful ku jiite rek def lu ñaaw rek ñu jëlee la fi kon moom dañ ko war a jëlee ci bopp tëdd fil écurie Fass kon moom Gris Bordeaux bien sûr ndax xam nga lu tax. ñu bë xam nga xam nga ñu bëri. dañ ne man Alioune Sarr may jox enveloppe. waaw nee da moom kon dégg nga jógoo. kon Alioune Sarr ñu muy bokkal bëri na. Ah. billaahi bu Alioune Sarr waxoon. Ah. billaahi yuuxu dina jub ko foog ay anciens yoo xamante ni ah waxuma sax Alioune mhm. mais ministre sport sax daf leen di dimbale ay enveloppe. ay anciens lutteurs non ndax xam nga Matar ba dafa tëddee njaaxanaay moom ku fa ñëw dis ko soxlaa mu defal la mhm. man li ma xam ci ay nit ñu baax. Mhm. sama jabar mii mën na ma seede ku ci nekk moo toogee ba mu yàgg rek laa lay oo téléphone nuyu la ku ci mel ni sama yaay Adja Momi Kébé doomu Njuga Kébé nga xam ni moom def ko tu la kooku moom mën naa ko sax du maye ay cent mille la kooku moom bu la mayee mën ngaa toog ñaari weer ñetti weer doo dem këram yàlla na ko Serigne Touba fay ci li muy def ci yoonu Serigne Touba bi kooku moom xam nga euh, laa xam ni ak soxna sëñ Muntala suñu suñu soxna suñu soxna sëriñ sang bu baax boobu muy bàjjen kooku dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm ñun dañu bokk famille bu rëy. père ñëw ci ñi nga xam te waaw ñi waaw xam nga dama loolu kii la rek moo doon dugal. waaw maanaam loo gis ci euh, lutteurs en activité yi xam nga dóor bu ñuy wax dóor ñoo dàq dóor. dem jox ko ministre bi nga xamante ni mooy. Euh, ministre euh, de la santé kii euh, Abdoulaye Diouf Sarr. Mm-hmm. maa ngi koy nuy à passage ku baax jabaram heure bu jógee aéroport maa koy jox fu mu gaare kooku dama ngi koy nuyu à passage benn jour dama dégg ñoom dañu joxe ay don xam nga don yi nuñ ko defee. Mm-hmm. dem ci ministre yi ñu dimbale leen wayaan ministre yi jox leen ñu delloo ko ci nguur gi maanaam dañu jëlee ci nguur gi delloo ci nguur gi. mooy les lutteurs en activité. waaw. ah Gris Bordeaux li mu wax ci tele ñëpp di ko dégg bi ñu ko bakkee invité mhm. ay Ablaye Fafana ay diw ay diw lañ dem ñu jox leen. Uh-huh. dóor c'est que bu ñuy wax dóor ñoo daq dóor nañ bàyyi booy yi ñuy nax. seen i foor ba boole li ñu am ak li ñu amul yëpp. ku ko waat lakk nañ taxaw ne télé bi nañ taxaw ci maa leen demande nañ taxaw wax ni kii lii la joxe kenn génnewu ci cent mille yu mat dañu dem génn ci ay nit man su ma neexoon tey su ma neexoon wóor na Serigne Touba Mbacke tabaski bii caare géej yëpp am tabaski. ndax am naa nit ñu baax ñoo xamante ni mais maa mënul dem di do mais ku am problème ba ma xam ne am nga problème danaa dem ci samay nit ñu sukkandiku jàppale la. kon ñoom seen dons yi daal dañ koo dóor ba. dañ koo dóor ministre lañ dem du dóor man xam naa ministre li ma xam ci ministre du jéem xaj. Hmm. su ma maître El su ma demoon na ko tey jii 2 millions laa soxla daf ma koy jox dama ko bëgg def social daf ma koy jox. Hmm. Mbaye Sarr mi may liggéey Sénégal bu ma demoon na ko war naa ko fulla jox mu nekkoon koy jox. te man ñàkkuma fayda bu ñàkk fayda boo xamante ni damay dem fekk benn mbër bu feebar ñaata mbër fi ci ay ci ñaata mbër fi gaañu don boobu ñu doon def bi mbër moomu mbër yi bi ñuy gaañu lu tax ñu don boobu dem def jàppale ko mbëri mais est-ce que tamit don boobu boobu ci diggu corona bi la parce que kenn ku nekk def nga benn geste te mbëri tamit ñoom am na geste bu ñu waroon def nag Papa Khadim dégg nañ mille milliards yi Macky Sall jot na mille milliards daf ko war a def askan wi ñu dégg loolu rek ku nekk naaw ak say ngandi bara daw naaw ku nekk daw pour bëgg rek Macky Sall yëkkati benn somme jox leen ko bii bukki bii njuur bii sàmba ñoom loolu lañ bëggoon xam nga ndax ba leen ba leen bañ demee ba ñuy ubbi inauguré stade bi xaalis bañ leen jox ñu war ko séddale ci digg bi dañu yëkkati mbër mu ne ay 5000 lañ la jox. mais boobu moom ñoom Gris Bordeaux wuñ ko woon. boobu moom ñu ah. kan moo ko dirigé woon beneen bi waaw su ma juumul est-ce que du ñu moom dañoo dóor ba am seeni oto. kan Xaadim Gajaga. pire bañ ba ma dalee wax ba léegi dañ maa tontu dama leen dencal loo xamante ni ñoom. kan la ci ñoom waaw déggoon naa sax mu ne daf may porte plainte ma ne ko boo may porte plainte porte plainte ma ci procureur kon bu boobaa dina leeral xaalisu affaire doc affaire médecin boobu ñu doon ut daaw. non boobu ñun ñoo doon ut xamal leen benn mutuelle de santé ñoom Gaston Mbengue ñëpp jën nañ ay carte 5000 xaalis bi nekk lu bari kenn France daal su dem man maa nekkoon trésorier nekk naa fa juróom benn at ma gis dërëm. musuma gis sax ku signé xaalis bi ne xaadim nangam. te xaalis ngi doon boo leen gisee ñu invité leen télé ay costume ñuy sol. te xaalis ngi doon dugg. xaalis ngi doon dugg ñun xam nañ lépp. xam na lépp te lépp fi la ñu fekk xam nga am na yoo xamante ni c'est du Sénégal dañuy waxante dëgg léegi da ngay gis Sénégal ku bëgg a yëngal rek pour ñu nguur gi oola rek nga gis ñaari fan ñett ñaari yëngal xoolal xarim xuleel xaq xaw ma lan Karim xuleel xaq la xaw ma nan damay fàttali yi te jàppoon ko fan yi arrêté jàppoon ko mun ñu mën a dafa feebar ah ay gii mari Sagna xaw ma lan gii xaw ma lan toog ba mu neex ba gàddu sa association kenn xamul foo jóge nga ne da ngay taxaw ne askan yooyu xeexal kàcc kese dañuy kàcc xeexaluñ kenn seen bopp lañ fi nekkal nañ waxante dëgg réew mi ku ko bëgg a taal yàlla la yàlla taal ba nga tàkk jëppët jàmm lañ soxla ci réew mi jàmm lañ fi bëgg nañ bàyyi dóor yi dóor yi metti na. mais père. Mhm. yow bokkoo woon ci association. maa ci déggoo maa nekkoon secrétaire bi nekkoon porte parole boole ci. waaw léegi comment ça fait nga nekk porte ba pare nekk euh, nekk euh, trésorier. nga ànd ak ñoom. Mhm. yow ñan nga àndaloon sax ñanate la. Oh, uh-huh. sax seen i la ay moo tax nga génn waaw ndax Ablaye Wade moom daf ñu doon ëppal rek ñuy xeex bu ñu waxante dëgg. <laughs> daf ñu daan ëppal ñuy xeex nañ waxante dëgg rek ndax chaque jour daf ñuy invité. elie mu jox ñu chèque wala mu jox ñu liquide xam nga nu muy def bu ñu invité day teg benn 10 millions wala 15 millions ci kaw taabal ji jàkkaarloo mbëri bu ko defee mbëri yi ñu mel ni Père Mbaye Gueye nga xam ne moom gisatuñu million bañ géejee gis million kenn xamul kañ la buñ ko gisee rek commencé naaw fa la ñu joxe 10 millions ci biir palais bi ñu yëkkati xaalis jox nu ko may nu ko paas ñu séddale ku ne am mille xaalis bi des loolu fa mu des nañ wax fi ñu ko dugal ñoom. moo ko géré ñoom. ñoom ñoom ñoo doon séddale. man mi ñun ñoo doon séddale gis nga jour ba séddale ñoo xamante ni sax ay garde la ñu nekk. ci palais mais ñoom ñan lañ man maa fa nekkoon. waaw Khadim Gadiaga. Mhm. Lac de Guiers Boy Kayré. Mhm. ñoo fa nekkoon di séddale ci biir pale bi Abdoulaye Wade mhm. am na ñoo xamante sax ñu ngi ay passeport diplomate te man man maa ngi nii man yooyu naa passeport diplomate. Hmm. mais mën naa ne sax doyoo ma ko dara doyoo ma ko ndax man tukki sama jabar mën na ma seede heure bu ma demee France sax pour entraîner hmm. bu ma waree am 2 mois 15 jours laa fay am doyal sëkk fay damay fayaat pour ñibbisi. Hmm. Moustapha Guèye moomu ànd nañ laaj ko. ñu war fa am un mois benn spectacle ba spectacle bi jeexee may tee damaa ñibbisi waat man ma yooyu man moom Europe moom yàlla xam na ni moom intéressé wu ma mais ambassade yëpp xamante na ak ñoom. ci aéroport bi laa gën a amante ak ñoom ay xamante ñoom bu ma bëggee ambassade Suisse sama xarit la Allemagne sama xarit la France moom suma xarit la mais kon bu dul ñu xamante ak ñoom sax sama dayo ci làmb ak li ma def ci làmb fu ma dugal visa par force dañ may may mais nag man maa bëggul loolu su ma dee voyager daal damay ànd ak soxna si dem noppaluku ji am congé hmm. dem noppaluku ànd ak sama ñaari doom wala ñett ñu dem noppaluku buñ paree ñibbi siwaat loolu daal laay ñaan yàlla waaye dem daal pour fu seen i liggéey hmm. dama koy bàyyi ak samay doom ñam mayal buñ màggee nga xam ne bëggu ma ñu bëggu ma ma ñu kii dinaa gërëm tamit sama ñaari doom hmm. muy jama sama taaw ak buso ndax jama moo jënd masque yi yëpp tey jox sama xarit yëpp ñu jox waaw sama doom la moom moo def lépp ah, ak jam waaw moom moom jàmbaar la wax dëgg yàlla waaw euh, li muy def nii ministre de la santé daanaka la koy defal ay masque lay jaay fu ku mu gis sax amoo masque mu yëkkati masque may la wax dëgg yàlla waaw kon franchement kooku xam naa ni li baayam di ne moom mi ngi ciy jàppale ko